dégg la loolu xam nañ ko ci yéen loolu xam nañ ko ci yéen ñu ngi leen di gërëm bu baax Mbàkke ñu ngi gërëm bu baax jërëjëf nag sooga yàlla xam naa nag bu lii lépp weesoo moom dinaa xoolaat beneen bés bu gën a dal boo xam ne dinaa ñëw ziar si ñu mun a jox ko bu baax loolu dama koo ñaan ci ñaan ko en tant que ñaan ko en tant doom ñaan ko en tant sët waaw loolu laa ñaan waaw sëñ bi say waaw bu soobee yàlla waaw jërëjëf nañu trop. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki euh, Sénégal mbokki talibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar dama bëggoon a euh, kii amoon ay xalaat ay kàddu yu ma amoon bëggoon ko jëmale fii ci situation réew mi ak. Euh, taxawaay bi Sëñ Muntaxa taxawoon ci événement mars deux mille vingt et un yi ak euh, tënk ko ci ñetti poñ boobu ak Sëñ mm, euh, président Ousmane Sonko doon wax naan dafa mel daa bëgg Sëñ Muntaxa mu am ay jafe-jafe euh, ak itam taalibe yi ak yeneen citoyen yi nga xam ni rek dañuy wax fan yëpp naan sëñ bi daa war a wax lii ak sëñ bi daa war def nii ci loolu lañ amoon xalaat buggoon ci ab ab contribution <coughs> dama doon yàlla dafa def nag ñu bokkoon ci ma bokkoon ci ñi si Mountakha tànnoon defoon lañ ci délégation boobu mu yabaloon ci opposition bi ci événement mars 2021 te Serigne Bassirou Porokhane jiite woon ko ah te Mamadou Diop Decroix bokkoon ci euh, Madické Niang ak Makhtar Souran bu ñu sëriñ bi wooyee Touba ñun ñëpp bi ñu yëgowuñu sax dafa bi ñëwee def nii dama bëgg ngeen demal ma am duma leen doxloo ngir jàmm Sénégal Euh, léegi ñooñu ñu xam leen yéen ñi xam leen ci ay politique politiques ba pare ngeen nekki taalibe man ak sëñ Bass Porokhane mu ni yéen da ngeen bokk sama njaboot te fu ñu leen gis danañ xam ni maa leen fa yebal loolu moo taxoon bi ñuy ñëw mu ni mu ni mu wax sëñ Bass ne ko wax leen dama leen di wax xam leen que ni ñaanuma en tant que xalif général des Mourides damay ñaan rek ngir Mountakha Mbacké di citoyen Sénégal bëgg réew mi tax may ñaan luñ mën a def Euh, ba jàmm am ñu am am ci réew mi euh, ci cadre boobu la ñëwee woon euh, sëñ bi sëñ Bass rencontré waa kilifa yi ñoom Ousmane Sonko ak waa m ñaan leen ni leen itam sëñ bi li mu bëgg rek mooy ngeen trouver ay moyens ba jàmm mën am ci réew mi te ni leen ko waxee dana ko waxee itam beneen doom ji sax di président Macky sàll waaw wax dëgg sëñ bi itam ah bañ ba sëñ Bass waxee ba pare itam. m joxe nañ ko benn mémorandum boo xam ne jox nañ ko sëñ bi ba transmettre na ko président loolu moom wax dëgg def na ci lam ca waroon def euh, bi niñ ko niñ ko kii itam sëñ bi itam wax dëgg yàlla waxutoon de manière claire bàyyi leen marche bi wala na ngeen di amee jàmm ji te waxu leen ko dafa ñaano rek li mu bëgg euh, en toute logique nag ci la waa M2D décidé en toute responsabilité ni kon léegi nañ sur sursoir marche bi ndax loolu bokk na ci condition jàmm bi di am. li tax may leeral loolu dama bañ ñu jàpp ni dafa am fu réew mi toll woon wala xëy na beneen camp bi newoon ci jafe-jafe sëñ bi ñëw sauvé ko sëñ bi moom ñëpp la bëggaloon jàmm réew mi la bëggaloon jàmm waxutoon sax mois moyen bi koy def ni fexe ba loolu am loolu la ñaanoon kon téyewutoon xëy na loxo kenn di bàyyi keneen di dóor kenn loolu jàpp naa ci contexte bi day jar euh, fàttali ko kon nag wax dëgg yàlla taxawaayu sëñ Muntaxa moom buñ ko mënta njukkee itam waruñ koo mën a reprocher dara ci ci ci ci taxawaayam ci réew mi en tant que citoyen ndax itam ci Covid ba la lam ci def ci alal def ko ci taxawaay ci ndimbal ak xaalis lépp kenn defu ko si woon. victime yi amoon ci manifestation yi te bi mu paree euh, joxut yëmutoon jox jàmm rek dafa yëkkati cinquante million jox leen ko pour ni nañ ko dàmpe seen njaboot jàppale ci ñi ñi ñi blessé boobu taxawaay nag defe naa ne wax dëgg yàlla lu dut euh, kañ ko yëkkati ko waruñ waruñ koo def. beneen bi ci topp mooy bi président Ousmane Sonko di wax ni dafa mel daa bëggoon a gis mu jafe ko loolu moom li ci sëñ maam Thierno Mbacke di doomi mu taxa wax rek doy na sëkk ndax neen da koy laaj ba xam ba bëggee gis sëñ bi ci ban bunt la jaaroon ndax kër moom day bari ay bunt buntu saral la sax am na fa ah loolu itam mm, lu lu lu ñu jaaxal la lu ñu bett la itam ndax man mi modestement rek bokk naa ci ah, ñi ñi ba mu fa njëkkee dem bokk na ci ma ñi ma àndaloon dem sëñ Mountakha te bi ma sëñ bi dugal ci délégation boobu itam événement 21 mars yi wax na ni sama njaboot nga te xam naa sa diggante ak Ousmane Sonko seen proximité waaw loolu nag euh, kon wax dëgg yàlla bu jafee di fanaan sëñ moom yëpp la ubbil buntam amut benn benn xaarma yàlla ci diw diw waaw te waxoon na ko sax euh, ba mu ko gisee poroxaan ba ñaanoon ko audience privée sëñ bi am na kom mu ko boole ci ak njabootam ni ko kon boo ko soxlaa rek nga wax ko nga yëgal ko loolu la wax dëgg yàlla defe bu jaaroon foofu mu jaar ci yeneen voie autorisée jafe boobu du ci am kooku nag na Sénégal yëpp xam ni Sëriñ Muntaxa moom tëjalul kenn buntam indilul kenn kenn ay jafe surtout acteur politique euh, kilifa gu toll ni ki Ousmane waaw bu ànd nag ñu war a àndal xëy na euh, ñu ñu méngool dayoo ñëw sëñ bi du am benn jafe-jafe pour pour recevoir ko loolu mooy beneen beneen point bi waaw na bi ma bëggoon a terminer rek mu mujj rek mooy euh, temps yi wax dëgg yàlla wax ji bari na lool ñiy wax ci ni sëñ bi war a def diggante nit ñeeg sëñ bi nag ni ko sëñ Abdou Lahad waxee woon mu baax ma yàlla na ko yàlla dolli leer moo doon euh, ñetti façon nit am ki nga xam ni xamul sëñ bi dëgg kooku moom amul àtte ci sëñ bi waaw ah, xëy na xamu ko yoonam nebu ci keneen ki nga xam da koo xam ba pare ni ko yàlla def neexu ko kooku kenn mënta wax ak moom ndax loolu moom ah, kañaan lu xam ne kenn mënu ko boole ci dara ah, ñeneen ñi ko xam nag gëm ko fonk ko wala ñu topp ko jox ko seen bopp mooy ñun ñi nekk taalibe ñooñu nag dafa am taxawaay bu ñu am ci ci ci ci ci kanam sëñ bi sëñ Muntaxa macha allah xam ne ak matam xam nañu ak taxawaayam xam nañu doguwaayam ci lépp lu war a def taalibe nag moom mooy ki nga xam day bàyyi boppam sëñ bi bàyyee ko boppam te te bàyyi boppam sëñ te bàyyi ko boppam loolu mooy li ñu war a am te nag ñun nag wax dëgg yàlla ku ci sàggan sa taalib dana ci yàqu ndax sëriñ moom dee su ko jox ndigal. dees ko digal li mu war def ndigal dees koy déglu dees ko laaj sax dañ koy déglu rek waaw bu sëñ bi waxee ñu ànd moom ci li mu bëgg ak surtout que rawatina ku mel ni sëñ Muntaxa ak taxawaayam léegi bu dee ay taalibe koy wax ah defuñ leen war bu dee ñuy mbubboog taalibe nag wala naan man murit laa te duñ murit ba pare di ci wax lañ ci bëgg wax loolu moom seen digg yàlla te seen responsabilité waaye ñuy tudd taalibe daal wax dëgg yàlla lu dul naaw jëfe si Muntaxa bi te déglu ko lu ñu war a yëg lu mu war ñu fexe ba yëgal ko ci condition yi ñu ko war a yëgalee moom lam ci war a def defe naa dana ko def waaw ah, kuy wax ak président de la république nag côté boobu kii daa yor pouvoir kii yor a pouvoir boppam bu ko bu ko réew mi jox kii am pouvoir bu ko yàlla jox waaw ah, kon nag dam na muy mën a waxee ndax kilifa am na nees di wax ak moom waaye nag doo taxaw ci mbedd mi defi déclaration wala def yenn communiqué loolu moom du taxawaayu sëñ bi te yàgg na ko wax ni moom lépp lu am ko may ba mu agsi kon nag du léegi lay lay lay soppi taxawaayam xam naa ci côté boobu waaw. lu ñu war a yëgal dañ koy yëgal te bàyyee boppam mu xam lam ci war a def mu def ko defe naa loolu daal mooy situation bu gën a taxawaay bi gën a rafet gën a yell te gën a wax dëgg yàlla fi fi fi mu toll nii ci ci ci ci dayoo ak ak ci réew mi waaw loolu daal maa ngi jégalu kàddu yi fekk am na lu ci jubut waaye daal yéen a jooju lañ amoon pour leeral ko jotali ko nit ñi bañ xam dëgg-dëgg nu nu nu mu demee woon waaw. léegi nag leneen li ci des nag mooy am réew bu tolloo fenn moom ab peuple mooy xam la bëgg. mooy mooy décider boppam man moo moo ci ab taxawaay boo gisee loo xam dafa xëy dafa jaaduwut ah ñoom nañ ca war a taxawee c'est un c'est un taxawaay citoyen la waaye nag buñ foob lépp wékk ko ci bopp suñu mel ni moom ah, mooy mooy mooy def wala mooy mooy dindi waaw man nag li ma waxaat maa ngi koy waxaat placé naa pour wax ko ndax Ousmane yàgg naa ko jàppale ci injustice bu ñu ko mas a teg taxaw naa ci la ma ci mas a taxaw euh, defe naa bi événement yi amee maa njëkk dem këram euh, wax ci télé yi def ab partir contribution pour pour pour bañ ko ko teg benn injustice waaw kon nag wax dëgg moom itam na xam taxawaayu sëñ bi waaw lu mu ci war a wax moom wax ko moom loolu daal defe naa moo gën a moo gën a yell daal waaw maa ngi jégalu ñëpp tey balaa ñëpp.